district sanitaire de Sangalkam mu ngi 31 euh, euh, décembre 2019 Nous ngi bokkoon district sanitaire de donc district sanitaire de Rufisque moom leen xaaj ñaari parti euh, parti bi nga xam ne moo nekk ci ville bi boobu mooy le district de les bo génnee ville bi ay Kër Ndiayloo quatre communes yi communes commune Bambilor Jaxaay Tivaouane Peulh ak Sangalkam ñaat commune yooyu ñeenti commune yooyu le district sanitaire de Sangalkam moom la englobé mu ngi nag am euh, fukk ak niar, ñaar poste de santé ak centre de santé de référence bi bu nekk fii Sangalkam donc loolu mooy district sanitaire de Sangalkam léegi par rapport ak situation où feebaru mbas mi euh, bu ñu waxee coronavirus actuellement ñu ngi ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent cas depuis bu ñu bu ñu commencé am ay enregistré ay kaa ci district bi yooyu nag euh, am nañ ci juróom-ñeent ñoo xam ne ay cas importé leen mooy cas yi nga xam ne euh, bitim réew lañ jóge ñoom ñu ngi leen enregistré woon ci le 27 euh, mars bi ñu ngi jógoon ay voyageurs yi jógoon États-Unis la ñu ngi aussi am ñeen fuk ak ñeen cas communautaire ak téeméer ak fanwer ak ben yo xamné ay cas contact la euh, donc euh, lolu moy situation actuelle ka corona bi té actuellement aussi commune Bambilor mom leen gis ni ñoo upp ay cas ci district bi parce que fofu rek près de la moitié yi nga xamné ñom lañ nekk du sud ci commune bobu leen dekk te prise en charge aussi actuellement ñu ngi ci phase prise en charge à domicile démarré nañ ko te depuis le début bi démarré prise en charge à domicile jot nañ am ñaar fukk ak ñent ñoo xamné à domicile lañ leen suivre euh, té si ñaar fukk ñaar fukk ak ñent ñooñu actuellement ñaar fukk yi ñibbi nañ seen kër donc actuellement ñent ñoo des ñu ngi nek di suivre euh, depuis le début ba légui aussi euh, am nañ ay guéris. géeri yi nag am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne ay géeri leen léegi actuellement am nañ juróom-ñett ñoo xam ne ñu ngi suivre ñeenti ñu ngi ci kër yi yeneen ñeent ñu ngi ci hôpitaux yi donc mais ñoom ñëpp seen état stable na donc euh, euh, pour diir que actuellement daal si cas yi ñu nekk di suivre amaguñ ci cas dese